bismillahi rahmaani rahim waaw ah, bokki taalibe yi abdul xudduus fii ci daaru mooti mooy waxtaan ak yéen ci teewaayu sëñ mouhamadul amin fay la waaw sëñ mouhamadul amin fay mi ci waxukaayam laay wax ak yéen ga leen leeral bu baax ne leen ko ngeen déggoon ñu wax naa Moustapha Bey la tuddute di wax ak yéen mel ne wax ak lu nekk rek mu defe ko defin woo xam ne daal moom am naa ci lu ma metti lool xam naa yàllaa ko niit rek waaye sant yàlla ndox yàlla lu mu niit rek mu feeñ waaye na leen wóor ni daal yéen ñuy dégg daal koo ci xam ni moo la gisoon duma la xam Moustapha Bey moom noonu la mel ci man bu ma ko gisee xaw ma ko woon mel na def na ko ay ati at mbaa bokk diir bu yàgg yàgg waaye yàlla xam na ne ñu ngi ci door a xam dara yàlla mi ko niir rek la doolee sant bu baax mm-hmm. te bëgg sëñ bii fi teew te yàgg jëf leen teeg moom bari sax ñu indi ci moom ngir sama jëm mu leeral leen bu baax ne leen moom de ndogal gu méttee métti goo xam ne rek bu yàlla dogal la waaye xam ko sax defuma ko waaw xam naa dox yu àdduna xam ne mu nekk mu nekk daañu ko wuti alal ci àdduna léegi rek de moom wax nañ ma ne suñu Moustapha May lañ ko tudde wax nañ ma itam doon moritu ci arafa ci kër suñu Moustapha May waaye yàlla xam ne nii rek la demee ñi nga xam daal moo leen gisoon du ma leen xam mm-hmm. moom ko gisee bi ma ne kii xaw ma ko waaw waaye ñu ngi leen jégalu bu baax te yal na yàlla fay leen te boole leen tawfiix ci baaxu sëriñ bi te ko dégg rek mu jot li ko mbokk taal bi ci des waaw kay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.